nga xam ne kenn dootu ko présenté ci wàllu arts martiaux di ndaanaan di champion bu mag tey moom la ñuy set si biir fas yéene waxtaan ak moom ci jaar-jaaram ci ay trophèem ci ay jaloor yi nga xam ne def na ko ci Sénégal def ko ci bitim réew yemul foofu waaye def ci ay xam-xam bi nga xamante ne nii moom tey euh, yàgg na teewal Sénégal fu nekk jël ko di ko pratiquer ubbi école am fii ci biir réew mi di ko def ci xale yi nga xamante ne nii euh, euh, ñoom ñooy doomi réew mi di leen génnee fu nekk ñuy ami ndam tey moom la ñuy fas yéene waxtaanal mesdames messieurs je vous invite à voir ce qui est à l'intérieur c'est maintenant asalaamaaleykum mbokki xarit yi gannaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ku ci nekk sa tur ak sa sant waxoon nañ leen ko sànq euh, ci bunt bi bu ñuy dugg si bi ñuy def suñu ouverture nu sommes avec la légendaire euh, maître Dame Seck nga xam ne kenn dootu ko présenté waa monde athlète xam nañ ko Sénégal aussi xam nañ ko mu yàgg teewee réew mi fu nekk et puis di bay waaram ba pare continuer ba léegi di bayit waaram ci biir réew mi bàyyiwul loxoom benn yoon tey moom la ñu ñëw seet si fas yéene ko euh, delloo njukkal seere ko laame ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom personnellement def na ko aussi tamit collectivement mu ngi nekk di ko def pour le Sénégal met ñu ngi lay nuyu. seetaan ñëpp euh, di kontaan seen déplacement bi ngeen def tey ñëw fii pour parler xam naa mhm. maître daal surtout des arts martiaux. ok ñu leen mhm. tey euh, dañ fi ñëw ci sa biir salle. ñu bëgg a fàttaliku tuuti rek ci maître Dame Seck tey suñ la waxoon kan mooy maître daam Seck ci jaar-jaaram ci wàllu arts martiaux donc lan leeral nga ñu ci indil tuuti rek. waaw xam naa résumé rek parce que jaar-jaar bi moom bu yàgg la quand même. donc ça fait presque lu euh, wàllu mat ñeent fukki at. Mm-hmm. Euh, ñu ngi pratiqué arts commencé jàngale lu mat euh, fanweeri at ak juróom depuis 1985. Mm-hmm. donc parcours bu parcours bu gudd la. Mm-hmm. Euh, parcours la boo xam ne jot nañu aussi dugg ci arts yu bari donc commencé karaté def boxe française dem kobudo def apkido def taekwondo plusieurs formes de taekwondo plusieurs formes de apkido def kendo euh, notamment donc def nañu ar yu bari euh, parcours bi aussi li ci gën a significatif mooy côté formation bi parce que dirigé nañu ay salles yu bari bari bari bari que mu nekk au niveau de la gendarmerie front de terre le CRER LGI Euh, en tout cas au niveau de la gendarmerie en tout cas ci saal yi foofu laa gën a en tant que formateur mais aussi au niveau équipe nationale yi mhm. équipe nationale taekwondo yor nañ ko à deux reprises entre 99 ak mhm. ba 2002 entre 2009 2012 mhm. parcours bi aussi am na benn volet xam na international la ñuy wax parce que maa ngi woon jàngale aux États-Unis jàngale naa Canada si saal yu bari donc boobu ba ñëwee aussi en 2017 loolu laa ko doon def donc parcours bi donc euh, en riis na riis na waaw ah. mais tey euh, suñu doon ku doore ci diggante maître Dame Seck euh, bi mu tàmbalee sol tenue di taxaw. Hmm. di porter le Sénégal di combattre di génn bitim réew. ci diggante boobu noonu lan nga ñu ci mën a wax ci ay trophée ci ay jaar-jaar yi nga xamante ne yàgg nga ko teewee ci Sénégal. waaw donc parcours bi sax hmm. côté formation la gën a risque côté combattant. parce que man carré la jëkk compétir. rappelle maa gañ woon mhm. championnat yu ko kaay bu 84 mooy club karaté bi ëppoon doole ci Sénégal donc defoon aussi championnat du Sénégal bu 86 mhm. ensuite ma ñëwee taekwondo boobu taekwondo amaguloon doole maa ngi fàttaliku première compétition bi ñu def 20 mhm. combattants moom moom 20 combattants léegi boo gisee benn interclub bu gën a ndaw dina am 300 combattants 20 combattants ñoo defoon première compétition bi ñu s woon en 1987 à l'USTD donc dañ dajaloon ñëpp parce que taekwondo Euh, normalement par catégorie de poids la mais comme ñun ñu bëri ñu woon dañu boole ñëpp ci benn catégorie mm-hmm. donc première compétition boobu laa gagné woon en 87 mooy le premier championnat national mm-hmm. euh, la première compétition bu ñu organisé après nag euh, ñu toogaat ba 89 soog soog organisé encore et des par équipe souvent par équipe la daan def parce que combattants yi bëri wu ñu woon xam da nga ñëw par cinq mm-hmm. club bu nekk indi cinq ngeen compétition nag la ñuy soog organisé le premier championnat Sénégal 1990 waaw te boobu aussi maa ko ñëwoon euh, catégorie kilos mhm. bon mooy titre bi ma gën a neex parce que boobu c'était la première compétition ah donc tournoi bi njëkk Sénégal ma gagné mhm. national bi aussi ma gagné mhm. donc ensuite euh, pour dire que formation moom ëpp solo sax parce que la suite dem naa équipe nationale amoon quelques péripéties euh, ba finalement j'ai pas pu dem championnat d'Afrique bi ma waroon dem en 96 ay souvenir la yu neex parce que ensuite dañ nekk yoo xam ne moo lay encouragé aussi du ñëw ci détails yi pour nga gën a améliorer wu euh, mais foofu aussi li yàlla def aussi ñu jëkk am titre si Sénégal mm. sur le plan international sur le plan international waaw ce sont mes mm. parce que sama soxna moo jëkk indi médaille ah, nekk vice championne d'Afrique en 96 sama élève bu tudd Thierno Côté moo jëkk nekk champion d'Afrique Mm-hmm. Ah, en 98. Mm-hmm. Eh, Balla Dieye sama élève la am na deux titres mondiaux des Jeux olympiques. Balla Dieye mm-hmm. Balla Dieye ñeneen ñi am ay titres yooyu aussi. même bu ñu nekk sama élève direct maa leen formé au niveau de l' équipe nationale. ba ñu nekk aussi des grands champions. donc pour dire que quelquefois euh, nga formé nit. mu nekk champion moo gën a metti que yow nga nekk champion parce que mën nga am sa propre volonté mais dis nit ko xam ne par exemple dafa may lacune amul volonté dafa paresse des na da koy formé di ko formé di ko formé ba mu naa loolu moo gën a metti moo tax foofu laa gën a am sax satisfaction. Mm-hmm. ok foofu nga gën a am satisfaction mais tey suñu doon wax euh, parcours bi riche na mm-hmm. te ñu gis ne ñaa nekk combattant jóge ci nekk combattant pare yor équipe di former euh, donc amour boobu noonu tey euh, lan lan lan lan la lay def. waa déjà pour compléter encore ci parcours bi. Mm-hmm. en 2008 am na benn titre mondial bu ma gañoon. mais pour dire toujours que titre bi ma gañoon titre bi sama élève gagné moom mu gën a wan importance te pourtant titre boobu dafa am une compétition bu regroupé woon cinq cent mètres de taekwondo quatrième dan ba neuvième dan mhm. man ma jël premier ñu dem Corée mhm. ministère des sports coréen mhm. culture président fédération mondiale yi ñëpp taxaw ñu jox le titre je me rappelle bi may dem si ma hôtel maa ngi àndoon na sama benn maître coréen dama dugg si néeg bi rek mu xët ma ne ma lu tax kontaanoo <laughs> ma ne mais kontaan que gisul ma def benn explosion de joie alors que gis nañ bi may gagné champion d'Afrique fii ñi ñi gisuma jooy gis naa bi en 96 sama premier élève di gagné champion d'Afrique guddi géem nelaw ma yaa ngi kontaan voilà parce que loolu lu xam ne boo sama propre volonté la mais fële jël ko xam ne dafa asthmatique nga formé ko ba mu nekk champion gis ko xam ne boo xàccee mu daw génn saal bi nga dem ba mu nekk guerrier ba ñëw def ne mu mën ci àddina bi te buñ la waxoon fi mu jaar boo boo ko gis ko song nest loolu moo truc bi encore fierté la quoi. waaw fierté la donc c'est une grande fierté. waaw ok tey euh, dégg ngeen ko noonu mbokki xarit yi parcours bi ruus na ruus na lool lool lool mode athlétique bi xam nañ ko Sénégal aussi xam nañ ko ñi nga xamante ne aussi tamit génn nañ bëri na ci ndaanaan yi nga xam ne ni formé leen comme sànq ni ñu ko waxee mais tey dañ la fekk ci salle bi. Samedo ñu gis ko mu nekk turu saa bi lan mooy sama sama sama Samedo. voilà mhm. donc histoire du Samedo. Mhm. mooy histoire bu démarré très longtemps comme ni ma ko wax léegi depuis 85. Euh, jóge si garage bi ñuy entraîné si benn terrain handball mm-hmm. donc jóge fi ñëwati si beneen garage bi ñu ñëwee fii en 89 bon mm-hmm. yàgg nañ ci garage yi donc mujj gi ba dem <laughs> ba dem ba dem camp Leclerc camp nekk ci benn hangar ba mm-hmm. mujjee mu nekk dojo donc ba mujjee dem USCD euh, école fédérale bi ah. donc euh, ba mujjee dem extérieur ba mujj ñëwaat nag indi samado bi samado bi c'est très simple ñu bay dañ defe ne benn terme japonais la parce que doo bi mooy si jaaxal mais man moom laa foogoon na waaw loolu nag sama olof la. sama mhm. mooy sama yëf. sama yëf waaw do mooy voix ci ci japonais. Euh, mooy méthode. Mhm. mooy do bi nga dégg si judo mhm. dégg ko si si karaté do la ñu war a wax. Euh, dégg si taekwondo. dégg ko si hapkido dégg ko si ainsi de suite ainsi de suite. donc sama voix la. sama méthode la. sama expérience la. donc fii li may jàngal élèves yi. mooy li nga xam ne moom laa jàng. du ma ñëw rek ne gis ngeen sànq cours hapkido bi. mais lu ne la ñuy def dañuy def nunchaku dañuy def bâton dañuy def coup de technique de boxe. dañuy def. am na technique yoo xam ne sax ak Covid moo tax mënuñu ko def ay technique de lutte ay technique de combat sol ay technique de MMA technique de lépp laa la jàngal parce que loolu laa jàng bien sûr di am benn base yow tey ko nga jàng mm-hmm. mais boo ñëwee ma complété ak leneen mm-hmm. boo ñëwee ma complété leneen donc sama doo mm-hmm. mooy daal sama voix sama yoon sama expérience bi ma am moo laa bëgg jàngal ñi nga xam ne dañ ñëw sama salle bien que nag si la boo xam ne pour le moment développé gu ma ko pour le moment ñi ñëw sama doo rek Sall Samado dans les régions yu demee noonu ñu ngi ciy liggéey am na ñoo xam ne maa leen di formé mhm. donc nag Oustaz Ndiaye bi se la bokk am na ñu jógee Kédougou dañu ñëw fii mhm. régulièrement di jël ay sama Samado pour mhm. après ñu commencé tas aar bi boo xam ne li ko particularisé mooy euh, sur le plan technique dama regrouper l' essentiel des techniques yi nga xam ne dañu ko gis si karaté si taekwondo si majaar yëpp moo regroupé ko si ay enchaînements yu simple ay techniques di ko di ko diffuser di ko jàngal sama élèves su suñu la déggee da ko ba sama doo daal euh, sa yëf la boo xamante ne du turu japonais du turu chinois. mais ci say jaar-jaar mais tuuti ñu ñëw ci côté ci garage bi nga xamante ne yaa ngi fa doon entraîné. Mhm. tey suñu dégloo parcours bi yëpp mu ni mu riche fi nga jot a dem ni nga jot a formé ak yooyu yëpp te alors que euh, kooku nga xam ne moo def loolu yëpp ci garage la doon entraîné. Mhm. donc tey soo toogee yor salle bu mel ni yor élèves yi di former nit ñi partout dem bay envisager décentraliser Sama Do ci Sénégal tas ko pour suqali li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy monde athlète bi nga xamante ne ni Sénégal ñu ngi koy ñu ngi koy def ah, donc soo xalaatee ci ginnaaw lan la lay def. waaw ah, mais xam nga da ngay gis que ne ñu fekkoon ñu am nañ moyens yi ci war. Mm-hmm. arts martiaux ñun ñoo nekk les premiers. xëy na am na lu ko war am na débat bu am ne Afrique la commencé Chine la commencé ainsi de suite je ne pas. Mm-hmm. peut-être que li mu commencé Afrique moo tax peut-être parce que am na benn art boo xam ne ñu ngi koy pratiquer Égypte mm-hmm. ba tey ñu ngi koy pratiquer moo tax ñenn jàpp ni mhm. arts martiaux foofu la démarré am nañu jàpp ne Inde la démarré après ñëw Chine mais en tout cas daal lii wóor ba wóor depuis 4000 ans mhm. di nga gis ay fresques murales boo demee Chine mhm. euh, Égypte ñu wane nit di pratiquer art te ba tey ñu ngi koy pratiquer boo duggoon YouTube di nga gis loolu donc pour dire que su fekkoon ne am nañ les moyens qu'il faut mën nañ dominer le monde au niveau des arts martiaux nit du jógee na fii euh, préparer compétition këram ku tudd Goram Kare dem nekk champion compétition yi ñu yàgg def yëpp regroupement bi du weesu une semaine donc pour dire que donc africains yi sénégalais dañu am les dispositions yëpp pour nekk excellent en tout cas au niveau des arts martiaux bu fekkoon ne vraiment am nañ jàppale bu ci war euh, si garage lañ commencé bi ma demee États-Unis da nga gis nit di ko xam ne bu ñëwee fi doo ko jox ceinture jaune mais mu ngi yor complexe boo xam ne di former loo xam ne li ko may yëpp mm-hmm. mooy les moyens ñun yi chaque Jeux olympiques africains yoo nekk premier. Mhm. voilà okay. mais d'après tout lépp lépp lépp loolu nga xamante ne yéen a koy def euh, ñu gis ne ci suñu gis-gis ci suñu xalaat bu ndaw ci suñu seetlu tey euh, wàllu armation bi fii ci Sénégal dafa xaw a sooxee te. Balla Gaye Balla bi nga xam ne yaa ko formé mu dem nekk euh, champion olympique donc déggoon nañ ci ay wax yi nga xamante ne mu ngi ko doon def di révéler que quoi que di amul soutien bi ci war a nekk en tant que champion. Mm. donc nguur gi amul taxawaay bu mat bu mu ci war a taxaw donc yow lan ngay wax loolu en tant que maître. waaw jotul sax nekk champion olympique dafa participer jeux olympiques. dafa participer jeux olympiques waaw xëy na bu fekkoon jàppale bi ci war mën na ko nekk. am na deux titres de champion du monde. gagné na aussi euh, de euh, champion du monde euh, mm-hmm. francophone bi. Mm-hmm. donc sooxe bi mm-hmm. toujours ci côté moyen parce que pratiquant arts martiaux boo leen dajalee Sénégal war nañu mat cinquante mille. wala boo jëlee ñu def taekwondo mën nañu vingt mille. karaté peut-être même nombre. boo jëlee ñu def kung fu ainsi de suite ainsi de suite donc mu ngi développé quelque part parce que fooy natte fédération ndax ñu ngi développé mooy nombre de licenciés ñaar chaque fois ñu ngi am nit ñaa ngi pratiqué mm-hmm. mais amuñu soutien du leen war a soutenir c'est-à-dire que il faut que nit ñi comprendre que footballeur euh, bi nekk ambassadeur su Guinée mm-hmm. mais noonu la ko kii def Virgo Dao kii nekk karaté ainsi de suite am na benn fii mm-hmm. bu nekk deux fois champion du de Virgo Dao deux fois champion du monde de judo mm-hmm. actuellement dafay dem extérieur bari na ci ay morom ñu xam ne dañ nekkoon ay champion karaté mais amul benn reconnaissance dañuy dem seen yoon taekwondo li génn ci athlète ñu nekkoon fi ay champion mm-hmm. des champions d'Afrique wala en tout cas ñu am des médailles internationales mm-hmm. mais ëpp na ëpp na ëpp na cinquante la fille du vieux Boda je viens de me rappeler son nom Yass Samb la tudd deux fois champion du monde mais amul soutien parce que je pense que peut-être dafa nekkul priorité pour autorité c'est vrai que euh, pays en voie de développement agriculture école beeg santé beeg ainsi de suite mais boo gisee Brésil soucieux football bi moo tax après mën na indi ay touriste ñëw seet seet ñëw foofu bu ñu jàppalee suñu champion aussi mën nañ dem ba gën a yóbbu turu Sénégal ba ñëpp bëgg ñëw euh, visiter Sénégal la première fois bi demee Corée fu ma tuddee ñu ne ma Pape El Hadj mais ñooñu. parce que histoire 2002. histoire 2002 ba tax ñooñu bëgg nañ découvrir Sénégal Sénégal oui. de telle sorte que fu ma dem ñu invité ma. parce que maa ngi sol blouson Sénégal. Ah, oui. donc je pense que loolu aussi il faut que nit ñi nit ñi reconnaître ko en tout cas pour mën a jàppale les armes. te loolu mën na xew ci ci armation bi parce que ñu ngi représenté Sénégal fu nekk. ñu seetlu ne aussi tamit gars yi dem compétition di daw di dugg ci biir te bañ a ñibbisiwaat Sénégal dafa bari loolu lan mooy. waaw déjà xam nga loolu déjà erreur la mooy immigration clandestine la rek parce que boo dem bitim réew day baax nga xam fan nga jëm ak lan nga fay def parce que li ñu seetlu mooy ñi ko def ñëpp bàyyi nañ parce que ni ñu yaakaar noonu la yombee eh bien yombewul mhm. donc yombewul ah euh, loolu conseil bi ma jox tous les budoka en tout cas nekk ci équipe nationale di nga gis xam ne day ñafe pour dugg équipe nationale mhm. uniquement voyager ah bu demee dootul ñëw bu demee dootul ñëw te li ñu ci seetlu mooy du continuer arme mhm. donc day perte deux fois expérience bu mu amoon yëpp bu demee foofu du ko du ko mën a utiliser donc il perd mm-hmm. loolu ce serait bien kon mu toog fii mm-hmm. jéem a xool nu muy defe mm-hmm. ak nu mu mën di mën nga nekk peut-être entraîneur de club ah ba dañoo xam ne dañ def ay formation garde corps am de bons salaires am na ñu xam ne ñu ubbi ay société de sécurité donc loolu mën a nekk mais li ko waral toujours mooy lool rek da toog doo am xaalis boo defee regroupement euh, pratique bi indil la benn dara indil la xaalis aussi tu penses que peut-être moi je leur déconseille ça. donc toogal fii nga pratiquer su fekkee am nga possibilité nekk champion en tout cas ba yenn niveau yi euh, en tout cas ñi nekk yëpp am am médaille mondiale mën mën nañu am bourse bu fekkee tu es jeune nekk euh, vainqueur championnat d'Afrique wala Jeux africains aussi mën nga am bourse même bu fekkee bourse bi mën a gën a bari. Mhm. mais il faut que ñu patienter. bañ a yàkkamti aussi bañ a dem à parce que foofu amul mucc. ok donc pour nga am bourse il faut nga am benn benn benn médaille. wala ah oui il faut nga am yenn aussi il faut nga am âge. Mhm. Euh, mën a am am nay bourse olympique yu ñu joxe. Mhm. nga xam ne bon peut-être que takku takku yooyu sax mais quand même mën nga si toog Sénégal. Euh, mën ci préparer sa ay compétition ok ok ñu dugg ci ci ci entraînement bi sànq bi ñu fi dugg see léegi gis nañu ay ay ay ay démonstration yi nga xamante ne def nga ko fii gis nañ fi ah lam cokk lañ koy wax gis nañ fi yat ah, gis nañ fi ay ay ay ay mouvement yi nga xamante ne euh, mouvement karaté gis nañ fi façon mouvement bu nekk bi nga xamante ne mën nañu wax ci sax melting pot yoo xam ne ni ci wàllu arts euh, ci ay démonstration ci say élèves fii léegi euh, loolu temps bi nga xamante ne nii yaa ngi koy def ci élèves yi. ni mu méttee comme ni nga ko waxee sànq nit ki nga xam ne dafa ñëw mënul dara. nga koy jàngal A B mu dem ba mun a nekk dara. donc temps boobu lan lay def léeg-léeg ce que doo ci décourager de temps en temps léeg-léeg nga jàpp nit ki di ko forme benn loxo nii rek bu bëgg fa def benn at. léeg-léeg est que est-ce que est-ce que maître du yuuxu décourager soldaalam génn. non non non loolu nag passion la. passion la si man passion démb sama doom. Mm. Euh, daf may naan euh, soo amoon soo amoon ne soo amoon mille milliards nooy def est-ce que nga bàyyi saal bi sama soxla ne ko bul son du tax mu bàyyi saal bi ma ne ko su ma amoon mille milliards yi tax mu gën a concentré si développement sama doo bi donc ñi nga gis ñuy entraîné fii ñoom ñëpp ay maître lañ mm-hmm. chaque dimanche dañ ñëw mm-hmm. di perfectionné wu parce que ensuite dañu dem di yóbbu seen saal yi mm-hmm. donc chaque dimanche dañu am benn entraînement euh, bu ñu def donc pour entraîner sax c'est pas compliqué ah mais pour di motivation même su ma amoon débutant temps bu même bu laggee kooku laay gën a saw jàngal ki nga xam ni il est parce que dama bëgg am résultat ci moom waaw amoon naa élève boo xam ne ñaar tànki baaxu ñaar ñaari tànk loxo yi baaxul dafa yuut et tout mm-hmm. bu ñëwee dem ko jox mu soit di ko entraîné ba dafa taxaw moo tax mu arrêté ok doo am naa ko xam ne bi muy ñëw ci ban mm-hmm. dafa moon accident hanche bloqué léegi colonel la mm-hmm. dafa dem médecin bi ne da ngay def ci taekwondo parce que utilise seen tànk bu baax dina ta nga gën a souple mu ñëw léegi colonel la sapeur pompier. Mm-hmm. est-ce que donc ñi nga xam ne am nañu difficulté man ñu ngi gën a motiver su ma ñëwee si bi. ne am na stage par exemple. Mm-hmm. ñi ñu ñëwuñu xam pour quelle raison par exemple. Mm-hmm. bu bu fekkee ne sama dina entraîné. donc amul dara loo xam ne mën na ma démotiver au contraire loolu def may motiver. jël naa benn équipe nationale convoqué combattant yi ci corps gi ñu ne duñu entraîné boobu maa ngi soog a nekk entraîneur national ñu ne duñu ent bu bees tax bees tax en trois membres foofu la ñu dem West Africain six combattants cinq médailles. est-ce que. loolu daf may motiver man en fait aar bi dafa nekk loo xam ne man dama ko jële vie j'habite à deux pas chaque fois nit dina ñëw fi ne dafa may bañ a déranger day bëgg xaar bu heure bi ma nekk heure boo ñëwee appelle moi parce que su nekko fi di entraîner maa ngi bind wala maa ngi gëstu te lépp ci aar bi la donc gisuma vraiment loo xam ne war na ma démotivé non non non au contraire. Mm -hmm. même quand je suis malade je m'entraîne dans ma tête. Okay. quand je suis blessé du ma toog ne dama am déchirure non non je peux utiliser les bras. Mhm. mën naa def leneen ak leneen. Mhm. donc toujours am na loo xam ne vraiment moom mooy motivé. surtout que loo xam ne dafa nekk nag une option. option boo xam ne yow tu penses que da ngay continuer di ko def à vie. Mhm. benn instant daaw dama damay créer benn daayira parce que je pense li ma li ma. li ma jox aada dafa damay ragal dee yàlla lakk ma sax quoi xamut benn daayira chaque vendredi ñu defee wóyul ñu def ay xadar ak voilà mais wóyul parce que xaw ma loolu quoi ah, xaw ma loolu xaw ma loolu dama mais là je pense que yëpp jaamu yàlla la parce que formation la éducation la ah. donc loolu ok ok ñu wax ci ki ngay formé parce que bon gis nañ fi ay ay ay xeex yi nga xam ne donc ça tue ay mm-hmm. kataaya loo xam ne c'est très dangereux ci ki koy def donc ki nga xamante ne yaa ngi koy formé donc naka nga koy préparé ba nga xam ne li muy jàng fii su demee ci mbedd mi du ko mun a parce que général euh, man je bi may bi may dem pour jàng xeex dama demoon terrain ñu noq ma <laughs> yaa ngi dégg saa yi mu demee bu noq moo ñëwee ñu ñu ñu dóoraat yaa ngi dégg ma ne xaaral naa ut fu ma làqatu jàng dóor dóor dóor dóor pour mun a dem fayu mm-hmm. donc yu mel noonu dañ koy gis ki nga xam ne yaa ngi koy formé fii bu génnee ci biti naka ngay préparé psychologiquement ba nga xam ne li muy pratiquer fii bu demee du ko mun di tenter ci ay. cest dire que même boo ko préparé wul dara même boo ko musul yedd. nit di entraîné rek. Mhm. le fait que muy dóor saak di libérer énergie énergie bi. Mhm. loolu day wàññi tàngaar bi ci moom. man sam pap musu bëgg ma pratiquer. Mhm. parce que te très violent nekk. waaw ah musu bëgg ma pratiquer. Ah mais fu mu nekk fu ma doon nit je peux je ne peux pas. dama peut-être ma xëbal la sax quoi mais ah. pour dóor la nii je ne peux il faut comprendre une chose nag xam nga arts martiaux à l'origine c'était pour tuer. moo tax ñu ne art ah, martiaux. martial mooy la mooy militaire. Ah art de guerre. ki créé Hapkido bu gisoon Hapkido bi ñuy def du ko reconnaître. parce que moom xamuloon la mooy philosophie xamuloon la mooy technique respiratoire li mu xamoon nu ñu rey ay nit. maître yu judo yu jëkk yëg yu karaté yu jëkk yëg loolu lañ xamoon. Ah parce que coloniser leneen envahir ak kii la da leen envahir mënuñu utiliser seen ay armes à feu. Mm-hmm. ñu développer les arts mm-hmm. mais bi bi jeex na. Mm-hmm. ay xale ñu ngi jàng arts mm-hmm. mais beneen jàngal ñu rey mm-hmm. da nga gis xale bu def taekwondo wala karaté di def li technique bi xamul ko lan la ah kenn expliqué ko mm-hmm. c'est une technique dangereuse ah parce que xale kenn du ko jàngal kenn ko jox paaka day gaañ boppam wala mu gaañ keneen ah donc moo tax il fallait ñu changer enseignement arts martiaux yi dugal ci benn aspect sportif avant compétition karaté amul amul compétition da lay jàngal ni ñu rey nit léegi donc dépassé nañ état boobu xale yi tuuti ñu ngi ñëw di jàng ci arts martiaux yi mm-hmm. il faut ñu profiter ci pour di leen éduquer mm-hmm. moo tax ñu dugal doo bi mm-hmm. mais doo amu ci woon ab ki woon sul moo amoon ab la ñu indi ab ki doo les valeurs morales ah pour que nit ki su ñëwee ci le temps muy nekk ceinture noire mu nekk beneen nit soo gisee comportement am dans la rue rek parce que dafa yaru parce que dafa teey parce que il n'est pas nerveux parce que ceci parce que cela dañu ne parce que day parti arts martiaux ah. c'est-à-dire que boo demee ba ceinture noire mënuñu wax loolu ci yow c'est-à-dire que ay technique rek nga jàng technique nii rek mais fii rien du tout. kon psychologiquement da ngeen di préparer walla nit ki. absolument déjà boo duggee fii première chose bi ñu lay jàngal moo lay wàcc. Mhm. mooy salut. donc rëy bi de dañ ci yow. ba premier jour rek boo dugg rek saluer mhm. drapeau. Mhm. mooy te puis sànq gis naa kenn ki nga xam ne dafa def benn action boo xam ne dafa et puis ñu sanctionné ko gis naa sanction bi xam naa keebaa dina ko dugal loolu punition la loolu punition la punition la donc punition yi sax mën na gën a metti loolu mhm. mën na gën a metti loolu donc pour expliquer léegi mhm. donc boo ñëwee première chose mhm. li lay wàcce mooy da ngay drapeau boo ñëwee sa xaabar xaabar boo ñëwee tàkk taxawal saluer drapeau boo pare saluer maître bi ñu ne fa jiitee benn fan saa ay chef lañu da nga leen di donc yow bu amul humilité loo mën a pratiquer aar moo tax ñu au niveau des formations des entraîneurs dañ ci insister parce que il vaudrait pas que ñu dem aussi dem ba gis nit nekk ceinture noire nekk ku jubati ku mhm. fenn ku sàcc rek ainsi de suite mhm. donc il faut que là aussi maîtres yi nekk des modèles mhm. li ñuy wax ñoom aussi ñu commencé ko def ñoom ñu ci roy euh, assiduité bi ak ponctualité bi c'est important bokk na ci problème Sénégal bu fekkee soo ñëwee ñu punir la wala boo ñëwee nga xam ne deux heures temps gars yi entraîné yi yaa ngi ko a souffrir. Mhm. mais dina la rectifier prochainement. punition yi ñu lay def rappel yooyu ñu lay def comportement exemplaire yi nga gis si ñu la jiitu. Mhm. moo lay changé ba nga nekk beneen nit boo pratiqué un an rek. Mhm. ñu war a gis leneen ci yow. mooy les valeurs morales. surtout que léegi nag je dis que. Euh, Sénégal ñëpp dañuy wax indiscipline manque de savoir beeg ñàkk yar geeg ainsi de suite. mais je dis que ku ci nekk yaa ngi ko nekk benn un bon exemple pour ñoom que mm-hmm. nga nekk maître art martiaux que nga nekk euh, maître tailleur que nga nekk leneen ak leneen mm-hmm. da nga war a influencer positivement mm-hmm. bu ñu ko defee société bi la ñuy changé mais du loo xam ne peut état mun mën na ko changé non non non parce que école bi y a des mais ku ci nekk ni nga yor yar leen boo leen yaroo rek après lépp changé ok yar la comme ni ngeen ko déggee léegi maître Dame Seck wax ko moo xamante ne moom moo nekk suñu invité tey euh, dégg ngeen ko noonu donc du du du jàngal ko nit ki xeex rek technique ak yooyu mais éducation la dañ koy dañ koy yaraale donc yow mi may seetaan su fekkee da am benn xale boo xamante ne dëgër na bopp comme ni ñu koy waxee noonu léeg-léeg nga dégg ne xaaral ma yóbbu ko daara dafa dëgër bopp xaaral ma yóbbu ko xuuxal ko wala genre ak yooyu noonu donc ci bërëb yu mel nii euh, da ci am solo parce que dañ lay yar ba pare jàngal la Euh, ba ba te xam-xam boo xamante lu lay njëriñ la te doo ko wone ci mbedd mi lépp ci kaw yar la dafa am extrait yi nga xamante ne ni jëloon nañu ko fi sànq dañ leen di koy bàyyi seetaan après ñu retourné waat c'est maintenant ですよね。 Part number seven. Part number seven. Donc, ensemble. Pas nous 4, 5. Vous voyez, on va changer de position. 6, 7, 8. Maintenant, c'est la main gauche. 9. Débutons à partir de la 1. On va déplacer le pied droit. 1, 2, 3. Maintenant, main droite. Main droite. 4. On revient ici. 1. 2. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go!

ok gis ngeen ko noonu euh, maître tey dañu ñëwaat tuuti ci xew-xew bi nga xam mbas mi nga xamante ne ni am na fii ci ci réew mi euh, muy Covid 19 ñu sentir ne bi mu duggee Sénégal ba léegi ba commencé law état bi décrété état d'urgence euh, maanaam lépp loo xamante ne da doon dajale muy rassemblement dafa xawoon arrêté te bu ñu waxee rensemblement yu arrêté ñu interdire ko. donc bërëb yu mel ni dañ ciy sentir seen bopp bu baax a baax donc lan lan ban impact la def par rapport ak salle bi. par rapport aussi yow mi nga xam ne da nga am amour bi saa lekk nga bëgg jàngale xam-xam ak yooyu lan la la def. waa impact bu mag la donc lu difficile la woon. parce que il fallait que ñëpp arrêté. donc ku mel ni man xam ne matin da ñëw salle. dellu kër ga ndékki après midi nga ñëwaat toog ba vingt une heures vingt deux heures. lu metti la. Mm-hmm. ensuite su fekkee ne aussi loolu mooy sa gagne-pain mhm. kooku day metti parce que déjà xale yi mhm. ñoo gën a bañ bari si salle bi mhm. mais ñoom ñoo jëkkee arrêté c'est tout à fait normal ah euh, dañuy vulnérable euh, mag ñi aussi arrêté donc toog nañ trois mois yoo xam ne euh, pratiquement dañu tëj donc impact bu metti la sur le plan financier ak sur le plan aussi psychologique parce que lay stressé un parce que moo kañ lay jeex mais décision yu normale la parce que ñëpp tiitoon au début ah man ni moon jéem a pallier en ligne. en ligne damay dafay enregistrement sama kër. après nag di ko envoyé parce am na ñu benn chaîne bu ñu am. Euh, si lañ koy dugal suñu élève yi di ko seetaan am na ñu xam ne aussi dañuy defee enregistrement WhatsApp. di leen ko envoyé donc noonu lañ ko jàppee daal ba euh, ñu démarré waat. ok ok kon tey euh, cours yi maanaam leçon yi nga xam ne yaa ngi ko doon jàngale fii da nga koy def à la maison. ba pare def ko en ligne à la donc noonu lañ démarré mais mhm. après xam nga bi ñu indee allègement yi. Mhm. Euh, ñun dañ jël initiative pour que bu ñu reprendre entraînement ñu jëm a xool ñuy respecter les dispositions. parce que xam nga saa bi mën a jël fi 40 personnes. Ah mais tey booy seet ñuy entraîner c' est une dizaine de personnes. dañuy jël les distances. Mm-hmm. ensuite euh, am na gel yi ñu indi. Mm-hmm. booy aussi sa loxo. Euh, ensuite y a les masques aussi. ñu euh, interview moom sax ñu dindi ko. mais dafa nekk loo xam ne lu obligatoire donc disposition yi lañ jëloon. Mm-hmm. def nañ sax euh, mercredi passé benn mm-hmm. test compétition. bu mm-hmm. wane compétition sax mën nañ ko organiser. bu fekkee ne dañuy respecter distance yi. ba pare du am spectateur. spectateur ah, parce que boo seet seetlu naa ci net bi am na def compétition MMA. ñu ngi compétir mais du am public. def nañ ci benn test ñi ñu entraînement yi mu continuer euh, nit ñi déjà ñu ngi koy seen yaram ñeneen ñu gën jël poids ñi nga xam naturellement dañuy mhm. am facilité pour jël poids dañuy grossir mhm. donc euh, leneen li aussi mooy su le plan technique euh, il faut nga régresser boo toogee trois mois entraîné woo ce mhm. niveau dafay bàyyi donc assiduité bi ñu amoon sax di suivre vidéo yi xam nga au début la rek mais après su fekkee da nga nekk yow rek di entraîné doo trop motivé moo taxoon nag ñu reprendre entraînement yi petit à petit actuellement nii lañ def ministère des sports de l'intérieur joxe na autorisation bi mm-hmm. mais dañoon xaar arrêté ministère de sports bi mm-hmm. mais d'ici là ñu ngi defay yoo xam ne dañuy réduire mm-hmm. effectif yi bu daan 20 euh, 30 personnes ñu def 10 personnes ensuite nag yokk heures yi bu naan def benn heure ñu def trois cours si euh, journée bi ak soirée bi pour que ñëpp mën a entraîner te mën a seen bopp en même temps ok ministre des sports bi ban taxawaay la ci taxaw ci côté ci le plan financier bon foofu nag euh, xam naa sportif yi moom. Mhm. wala ñuy def arts gis ñu seen bopp ci soutien yi. ok donc euh, vraiment gisuñu aussi benn côté boo xam ne am nañu soutien wu euh, soutien état yi gis nañ ne mhm. recensé nañu pas mal de corps de métier. Mhm. mais arts martiaux yi que mu nekk quelle que soit discipline bi. en tout cas man ko. defee soutien dañu tëj suñu salle yi. salle de musculation yi salle de sport yi am na ñi nga xam ne peut être ñu ngi entraîné ci ay camps militaires ngi entraîné ci ay SEDEPS. peut ne. mais ñi nga xam ne dañuy loué fenn. Euh, di fay location am secrétaire di fay ndoxu courant mhm. nga tëj salle bi trois mois te amoo benn soutien mais yàlla ba na quand même mhm. donc euh, génn ci ak jàmm ñu ngi reprendre activité ndànk ndànk ok yow ban message boo amoon message booy lancé ci état bi ci côté boobu parce que quand même et puis euh, da ci war a jàpp parce que armation bi boo xoolee surtout sax côté bii nga xamante ne ni secteur mun nañ ko wax ni secteur secteur secteur informel la secteur informel la bokk te nguur gi xam naa ni bu seetaanee li dina am ay ay jàpp-jàppal li nga xamante ne dina ko ci def Euh, yow yow ban ban ban lan mooy sa taxawaay ban ban message ngay lancé. waaw nguur gi nguur gi war na mën a jàppale mais pratiquants yi aussi war na mën a jàppale seen bopp. Mhm. parce que dafa am lu ci nekk. Mhm. Euh, bu la nee vingt mille personnes ñu def taekwondo. Mhm. est-ce que am nga mille yu fay seen licence problème la. Ah oui. il faut que pratiquant yi fay seen licence la mën nga nekk ci organisation club la c'est pas daayira la wala il faut ñuy cotiser ah bu ñu te cotisation annuelle bi euh, bariwul entre mille francs la trois at ba at nga joxe mais ñi ci bëri amuñu licence déjà ñoom ñëpp suñu joxoon seen licence xaalis bu dugg la pour fédération ah les membres du comité de euh, mhm. ñu bëri duñu cotiser mhm. donc ndimbal la ca fekk la fay borom noom na ñu ah. jéem a góorgóorlu mhm. fay seen affiliation yi yi aussi gën a yokk seen participation parce que boo demee ba nekk dirigeant waroo mën a di cotiser ay cinq mille francs par ah. mois wala ay dix mille francs par mois donc loolu benn la donc beneen bi aussi loolu daf ñu tax ñu jël benn initiative mooy ñu créer benn organisation bu tudd SOS Budo ñu ñu jàppal SOS Budo mhm. euh, dimbalante la entre budokaay mhm. parce que ñu gis quelquefois suñu gars yi nekk si a jafe-jafe comme ñu ko jege yenn noonu yu wër ket ak yu demee noonu ñu ne bon pour éviter loolu mhm. nañu rassembler le maximum de budokaay yoo xam ne bëgg nañ ñu def suñu benn association xam ne bu ñu amatee ñi ku nekk ci jafe-jafe jël ci kees bi ñu jël ci kees bi ñu def ay cotisation ñu taxaw macha allah am na action yoo xam ne mm-hmm. euh, jot nañ ko jot nañ ko def mm-hmm. pour loolu ko mm-hmm. donc daal il faut que état bi jàpp si c'est vrai mais aussi il faut que buddukaay seen bopp aussi ñu mën a jàppale seen bopp bu ñu organiser compétition entrée gratuite la kenn du fay da nga ñëw stade Marius Ndiaye Fesdel def na nuit des arts martiaux huit mille personnes presque mille ci biti gratuit gratuit boo organiser championnat du Sénégal karaté taekwondo gratuit ah mais fa la amee dina ba nit ñi sax duñ leen du leen respecté. loolu problème mu d'organisation la te c'est les mêmes personnes ñoo dem di fay mille francs pour fay làmb ji. Ah wala eh, ñu mën a jàppale seen aar. jàppale seen bopp même bu leen jàppalewul bon a seen bopp. parce que fa ay ay luy des armations bon. nañu wax ne ci ay facteurs la yi nga xamante ne tuuti war na mën a indi. Mhm. dara ci ci fédération bi. non nuyu des arts martiaux organisation des arts boo xam ne. Mhm. stade bi day fees à 8000 places xaw ma 7000 places mais daaw y avait 8000 personnes. parce que dañu def 7000 mu fees ñu indi 1000 chaises teg suuf. Ah tëj porte ah imagine toi ku nekk joxoon 1000 francs 1000 francs 1000 mais bu duloo aussi organisation compétition fédération yi mais pratiquement yi nañu paas 1000 francs wala sax 500 francs mhm. bu ñu ko deful du sotti. Mhm. est-ce que jotul est-ce que jotul yéen ñi nga xam ne yéenay acteurs yi. Mhm. tey booloo benn union donc pour mën a kaas yenn yi mu yenn yi mën a taxaw comme ci làmb ji di koy gisee wala comme yeneen secteur comme ci judo wala affaire yooyu ma waaw. mais xam nga idéal bi moo doon. Mhm. mu am benn fédération des arts martiaux. Mhm. waaw da ngay def judo fële karaté fële kii fële. lépp nekk benn. lépp bu nekkoon benn am benn dirigeant. Mhm. nga ñëw taxaw ne yaa soixante mille personnes soixante dix mille personnes sama ginnaaw. mais boo wax dañ lay déglu. lay déglu c'est vrai. Mhm. mais da gis ñu bugg voyager benn association bu ndaw lañ am. Mhm. soxla 2 millions ñu dem ñu am amuñu xaalis 2 millions am na responsable sax mën na gën jox leen ko. am na fi <laughs> am ah donc il faut que gars yi regroupé loolu aussi c' est un problème. Mhm. c' est problème bon je sais que du nekk lu yomb. mais daal loolu mooy idéal bi. am naa ci ñoo xam ne xam naa pare nañ ñoom pour ne nekkatuma président association ak Fido wala kii pour ñu set ku la neex mu diriger fédération ñu topp si. fédération des arts parce que am na ci yeneen dëkk. Euh, am na dëkk bu ni par exemple Suède. benn fédération des arts martiaux mu am. mais loolu war na mën a am Sénégal mais fii da nga gis fédération yoo xam ne bu leen waxee indi sans combat amuñu ko. mun parce que ay affaire yu tuuti la. bala nga am fédération normalement war nga am ay ligue c'est-à-dire que chaque région war nga fa am au moins au moins quatre clubs. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne amuñu amuñu club yu bari sax Dakar. boo génnee Dakar kenn xamu leen. ñu jox leen fédération donc xam yooyu yëpp day tax affaire yi day sooxe. ku nekk dañuy gën a diviser wu. di gën a affaiblir wu. Mhm. mais dañoo regroupé am benn fédération des arts martiaux. Mhm. boo xam ne ñëpp dañuy topp seen ginnaaw. Mhm. soixante dix mille personnes wala même plus. mais koo waxal mais daf lay déglu. surtout que ñu xam ne euh, ñu ngi yi ñi te gis nañ que ne ñi ñuy formé ñëpp. c'est des citoyens modèles. bu ñuy compétir dañuy indi. ay médailles ay médailles donc je pense que war nañ gën a mën am considération de la part des autorités. ok bet euh, tey euh, dañu bëggoon. parce que dégg nañu ku bëri diplôme nga macha allah d'après say say parcours ak yooyu bëggoon nañ tuuti ci diplôme yi nga xamante ne amee nga ko ci bitim réew yi bu ci nekk nga nga présenté ñu ko ñu won ko askan bi won ko internautes yi won ko aussi tamit le monde athlète bi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. waaw am na quelques yu ma ci gàdd nag. Mhm. am na quelques par exemple euh, première compétition bi ñu organisé Sénégal. Ah. xamatuma diplôme fu mu nekk parce que sama diplôme grade yi sax d'habitude du ma ko jàpp. waaw man na joxuma trop trop trop trop importance. importance euh, diplôme yooyu dañu ko yàgg reproché. mais nag dina baax sax pour peut-être motiver. motiver mais fu mhm. <laughs> yu ma gàddoon sama bureau la. bi je me rappelle c'est en 2008. bi Akimoudou la. Akimoudou benn genre Akido ah. la quoi. Akido parce que boo diggee Mudo. Mhm. Mudo mooy art martiaux. ok parce que dafa am Akido yu moderne yoo xam ne ñu insisté trop sur l' art martiaux ok Mudo Mudo académique. waaw Mudo Mudo académique. bi ñu benn diplôme mondial la. ok euh, ok coréen Kim Min Ho hmm. joxoon donc bari na ci diplôme arbitre international la. Mhm. diplôme participation au championnat du monde de mhm. euh, Copenhague. Mhm. bon moom c' important mooy sama premier ma dem. en tout premier stage bu sénégalais def euh, africain sax lay wax. Euh, CNUP CNUP mooy. université coréenne. d' éducation physique. Korean National University.

donc euh, kii dafa am benn compétition bu tudd Battle of Warriors bu nekk euh, mhm. Canada diplôme bi ma joxoon boobu dama fa nekkoon euh, instructeur aussi mhm. arbitre aussi mhm. master black belt instructeur international donc boobu ñu ma joxoon foofu donc am bon bi aussi c'est important parce que JO yi les Jeux olympiques yi. Ah, 2012 Jeux olympiques 2012 ok. diplôme bu am solo la xam nga fii Sénégal euh, xamuñu trop en tout cas le Sénégal lambda. Mm-hmm. valeur u. diplôme euh, valeur u kii. valeur kii Jeux olympiques bi ma demee États-Unis daf ma indil bunt yu bari déjà su ma ko waxee duñ ma gëm. waaw ah bu ma nee dem naa JO comme coach duñ la soo wanee lii rek moom mos a firi. moo si fay bi mu tee fay ujeek parce que dañoo xam ne du ku nekk a dem. waaw waaw macha allah mu ngi nii. Ah, euh, waaw ah, gis ngeen ko ni participation certificat ah. certificat de participation Dame Seck xam nga yii moom am na solo lool macha allah. kii Jeux wala Jeux olympiques 2012. benn Canada la benn école de karaté taekwondo moom jàngale. Uh-huh. benn lettre genre recommandation la bu maire maire wu Georgetown. ok macha allah mais am na solo ah. oui international master instructeur. ok. ñu benn stage international des maîtres. Mhm. masters black belt. Mhm. professionnel instructeur séminaire séminaire international. des des des professionnels quoi des mhm. maîtres qui sont des professionnels. donc bii aussi. sax voilà c' était en 2013. 2013 euh, Ontario pour les la aussi. ok macha allah ans, diplôme coach le, mm-hmm. champion du monde yi ñoo mujjee kii 2011. arbitre international la. bi mm-hmm. ma passé en 2011 aussi. Mm-hmm. arbitre international. ok arbitre international. arbitre international. bon arbitrage mosuma intéressé trop. waaw mosuma intéressé trop sinon depuis 99. lañ ma proposé bi ma demee ba yegg foofu ma ne passé ma ne defuma quoi. parce que <laughs> dafay changer tout le temps. waaw yow daal enseigné enseigné voilà moom ma gënal quoi. mooy la bii dañ ma ñëw inscrire ba pare. Uh-huh. fekk suñu combattant amay problème xaalis. ma ne bon 300 dollars yi ñu may fayalee fayal ko combattant yi jox leen ko combattant ñu jël ci lu ñu lekk. ma wax wax ñu ne ma non inscrire nañ pare joxe nañ xaalis bi. si laa dem. préparé moo defa dara ñëw ñëw arbitré ah, ñëw def examen ah, après jàll quoi donc yooyu la am na ay kii coupe du monde la devant Chine la woon mhm. ah, coupe du monde Chine la woon coupe du monde coupe du monde Chine ok en 2010 2010 waaw bii 2008 la donc euh, bi ma gagné concours mondial d'essai des maîtres. ok ak Ablaye bi fële. ok allah. donc. Euh, bi bi yàgg Ablaye Wade la fii. ok ok c'était en. en en parce que dama nekk bon trophée bi. ok voilà. jëlal photo bi. voilà. gis ngeen ko nii maître Dame maître Dame Seck moog Ablaye Wade. dama ko indil ma ne ko bon trophée bi maa ko gardé sama tiroir soxlawu ma ko. waaw. donc alors que ça c'est pour l'Afrique quoi c'est pas pour moi waaw oui après si nag bon su may dem Union africaine ñu euh, ma présenté trophée bi macha allah macha allah donc euh, macha allah waaw waxoon gis ko ok <laughs> yoo xam ne bon lii lan la bon bi benn compétition technique bu an Anmadan Anmadan compétition technique boo gisee mooy ay kata la ñuy def ay self défense ay kas bii 2010 la woon en Corée aussi. Mm. am na comme am yu bëri man gàdde moo yoo xamante ne mooy loolu. am na diplôme yu bëri gàdde moo ko. bëri gàdde moo aussi Corée la woon ministère de la culture et du tourisme. benn mhm. stage moo defoon foofu. ok macha allah. voilà donc euh, en tout cas parcours bi riche na euh, gis ngeen ko nii euh, maître Dame Seck mook Abdoulaye mu koy jox trophée bi nga xamante ne gagné woon ko li c'était en 2008 en 2008 waaw ki moom kii moom vraiment. Ah, trophée bi maa xam nga fii pour ñu recevoir ba nga at. waaw bu ne di fa dugg fa dugg macha allah en tout cas jotaay bi ris na. Ah. te xam naa ne lii suñu njiit yi bu ñu ko seetaanee. Mm-hmm. dinañ xam ne wax dëgg fa yàlla maître am na mérite et puis. yàgg na taxaw réew mi fu nekk et puis voilà mérité na lu nekk aussi tamit ci réew mi ki nga xam ne yàgg na boot Sénégal wër àdduna fu nekk mu dem fa et ba pare bàyyiwul benn yoon ñëw di former waat sénégalais yi di leen yóbbu fu nekk mm. pour man kooku wax dëgg fa yàlla référence la ci réew mi te ñun en tant que Senclic dañu koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy toojal bu baax a baax mm. et waaw wax ko jërëjëf waaw lii macha allah rafet na mm. ok xam naa euh, saal baa ngi nii comme ni leen ko won gis nga war nañ leen ngeen seetaan li nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon ay démonstration yu ndaw ci ay maîtres yi nga xam ne fu ne lañ jógee ñëw root si xam-xam mais tey fekku ñu fi élève yi ki nga xam ne mu ngi seetaan bëggoon nekk def pratiquer arts ak yooyu tey su bëggoon rejoindre maître euh, Dame Seck euh, ci yan accès lay jaar wala ci naka lay def. waaw mën nga ñëw saal bi wala suñu saal yi parce que d'habitude bu ma nit oowee dafa bëgg pratiquer damay laaj fan nga dëkk. nga dëkk. soo mënee Liberté sis ma ne demal Camp Leclerc am nañu fa salle soo mënee Médina la nga dem gendarmerie Médina wala nga dem lycée Kennedy mm-hmm. su fekkee dañ nga ma ne côté golf nga dëkk golf sud am nañ noonu la ñuy def bon fii Samodo moom spécialement dañuy offrir euh, choix waaw dafa am discipline yu bari euh, ñaari su ma gisee que euh, da nekk xale yu ndaw yi dama leen dugal kuuru taekwondo xam na coup de pied mm-hmm. te bëgg ainsi de suite mm-hmm. Euh, su ma gisee adulte nga adulte yi dañuy dugal ku self défense. pour ak kii doomu ñu gis nii boo gisee fii ñëpp ay mag lañ. si fi gën a ndaw def naa mu ngi am 39 euh, ans wala 40 ans. Mhm. ki nekkoon ci ginnaaw am na 75 ans. est que bi mu amee 62 ans. si la mhm. commencé léegi dafa yor salle. dafa yor ko donc ab kii mag ñi mën nañ ko def. macha allah am nañu kuuru box guddi gi. Mhm. jeunes yi. Mm-hmm. am nañ aussi cours MMA. MMA mm-hmm. mooy mix martial arts. Euh, mooy les arts martiaux mix temps yii décembre amoon na tournoi am solo bu ñu organisé woon. discipline boobu man maa ko indi Sénégal. Ah, maa ko indi Sénégal te ñu ngi am nañ sax association. Mm-hmm. donc MMA. MMA donc yenn jeunes yi nga xam ne dañu bëgg combat. mais combat bi aussi ñu nekk ay professionnels. nga def MMA. parce que man je vois mal nga ñëw def ci arts martiaux yi comme amul xaalis. ay dóorante la rek nga def dóorante boo xam dañu ci am xaalis. nest pas. Ah léegi bu fekkee nag ah vraiment. Ah euh, yow élève nga ak yu demee noonu nga dem defi yeneen sport yi karaté ak taekwondo donc sinon daal fii mm-hmm. yàlla am na kickboxing aussi mm-hmm. ensuite saa bi dañ koy ubbi chaque jour mm-hmm. huit heures ba vingt deux heures c'est ouvert ñi mën a ñëw ci entraînement group yi ñu ñëw ñi nga xam ne aussi dañ bëgg ay cours particulier ñu def pour particulier sinon aussi boo nekkee ci région yi donc salle bi dafay tijjeeku 24 heures sur 24 su fekkee amuloo temps ci journée bi nga ñëw ci guddi nga ñëw ci guddi gi soo amul temps ci guddi gi nga ñëw ci journée bi en tout cas maître est là mu ngi fii et puis voilà ku accessible la te koo xamante ni ku boo ko gisee muy jàngalee doo ko ñemee mais soo toogee moom doo ko doo ngay xam ne <laughs> éducation bi muy wax ci armation bi macha allah. maître dañ lay jaajëfal donc euh, li ñu amoon ci temps waxtu jeex na lay sant di la gërëm di la encourager bu baax et di la féliciter ci sa engagement parce que yombul quand rawatina ci Covid 19 bi ñu jógee nga xam ne secteur yëpp taxaw na mm-hmm. te ki nga xamante ne ci arts martiaux la xam mm-hmm. ci moom lay dund te ci jafe-jafe yu mel nii dafay laaj jàppal dëgg dëgg dëgg boo xamante ni bu jógee ci état bi nag parce que lii yombul. Mm-hmm. Ah, jaar jaar yi yombul. formation bi aussi tamit yombul. donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di la bàyyi ak sa dernier kàddu waaw dernier kàddu gi moom dama bëgg vraiment autorité yi ñu dimbali ñu ñu dimbali ñu ñun dañu am benn projet bu mag mooy projet def benn académie bu mag boo xam ne dañu fa jàng arts martiaux yu bari dañuy xale yi aussi nañu mën a jàng euh, en métier mën a jàng école en loolu mooy suñu projet boo xam ne constitué nañu ak euh, suñu anciens élèves yu bari ak suñu xarit yu bari mm-hmm. ñi nga xam ne ñu nekk dans divers secteurs mm-hmm. pour ñu taxaw loolu mais xam nga loolu il faut nga am jàppale état bi ah donc démarche yooyu daal lañ nekk mm-hmm. te vraiment bu leen fëggee buggoon nañ ñu dimbali ñu pour ñu dimbali ñi nga xam ne euh, vraiment ñooy la jeunesse parce que il faut nécessairement que ñu investir sur la jeunesse mm-hmm. pour que ñu mën a am des citoyens modèles mm-hmm. ëllëg ci biir parce que après ñoom ñoo yor réew mi bon sinon daal remercier en tout cas ñi ñu mës a jàngal ñëpp mm-hmm. dama si cité particulièrement maître Ahmed dem foo moo waxee histoire arts martiaux au Sénégal dama ko cité parce que moo nekkoon sa maître euh, taekwondo te bu ñëwoon tey fii stade kenn xamu ko parce que tukki te lu yàgg dem Canada depuis 32 ans mais moo jëkk def démonstration à la télévision fii Mhm. en 82. Mhm. donc yu bari yi ñuy def moom moo ñu ci inspiré. am naa maître yu bari nag man. Mhm, yu bari jàngale bu ma cité ñëpp mais il faut ma cité aussi maître moom moo tax ma takk ceinture bi. ceinture verte jaune rouge. verte jaune rouge décembre dañ ma jox kimono d'or. kimono d'or. chaque année dañuy seet benn maître bu ñu ràññee. Euh, par rapport à beaucoup de choses ñu jox ko. jox te li ma ci gën a neex bi ma ko joxee. ñëpp ci d'accord. ñëpp ci d'accord. Ah donc il faut vraiment ma ko hommage. c' est pour dire aussi que moom moo ko gën a mérité. Ah parce que depuis 30 ans muy organiser la nuit des arts ah il y des milliers et des milliers de personnes yi nga xam ne tey def nañu karaté judo ainsi de suite. Mm-hmm. dañ ñëw nuit des arts martiaux seetaan benn discipline. Mm-hmm. mu neex leen ñu inscrire ko. Mm-hmm. donc ñu ngi remercier ñëpp. tous nos amis tous nos élèves partenaires yeeg tout le monde. sans oublier seen clic. ak yaa Oustaz Ndiaye bi. di leen jox naa rek a waaw waaw ci turu imam daal Senclic mu ngi pare na pour accompagner leen ci lépp loo xam ne ni ci wàllu information la ci xew-xew buy am fii ci biir sama do ak euh, maître Dame ak euh, waaw waaw waaw maître Dame waaw pare nañ pour accompagner la mm-hmm. donc asalaamaaleykum mbokk yi kii lañ leen indi woon jërë ngeen jëf